El Hadji Ahmed Aidara bismillah Fallou Sène day ah jébal nañ ko borom moom démb de Walf Fadjri ne waaye day waaw daanaka ñëpp daal di naxaru nag lii nga xam ne am na ci réew mi bu dee opposition bi nag maanaam kon dañoo jël kon baaraamu tuuma day daal di koy lan na ci ndootu nguuru Macky Sall gi lay waaw ñi xam ne ñoom ñoo ànd ak Macky Sall day da ngay woote nag ñëpp nañ ànd ak dal nañ ànd dal rek di retenir l'observateur ne démb day muy élève muy étudiant muy parent muy jegeñaale muy dëkkandoo muy xarit kilifa diine kilifa politique waaw ma la ñëpp nga maanaam kon defaru kii ko boromam ca diwaanu askanu baadaar gépp gungee ko ni ki laa la wax ci teewaayu professeur Lamine Gueye honorable député maire Malick Fall bu ñoom ñëpp daal la xam le mooy enquête bi daal dañoo bëgg kon lépp leer ministre de la justice ne inshallah ci wal fajri waaw parce que Ismaïla Madior Fall nee na képp koo xam ne maanaam kon laale nga ca day enquête baa ngi te lépp loo xam ne kon luwaa daal dina koy santaane day danañ ko ca def ba mat sëkk ka waaw ca waaye itam enquête boobee na daal di gaaw ngir xool na kan moo def lan ca saa sa nag la daal di procureur kon daal di jóg vox populi ne en tout lu mën a xew day waaw seen moom daal dinañ ko jébbal boroomam ni ki démb enquête yéene kaay ne ca sëb yu baax ca diwaanu Tuuba la vox populi ne ko may ma ma yeggali en yaram démb daw na de lool rongoñ ya bari noonu lool waaye tamit nit ña amoon na lu leen mi ci torop sax delloon nañ tamit xel yëpp xam ne ñoom ñoo fa waajuram ak ay xaritam jege ñaaleem ay étudiant ba ci ay seebal citoyen ci defarug néewam mën nañu ko jébbalee boromam kon ca Touba yéene ne armeel yéene démb kon moom moo metti yoon allahu akbar libération yéene ne waaye enquête bi day waaw la ca njëkk a ruusee ah de aa maa la ko wax ki nga xam ne nag maanaam moom moo di rebalu fatal ba day ndekete ab gendarme la laa ilaha ah, waaw moom ci boppam moo ko xam ne ci kanamu enquêteurs ne man nii ma dóor bal gendarme bi de waaw libération yéene kaay ne léegi koy leer comme que ab gendarme kon moom moo def lu ni mel day waaw dossier ba nag dañu ko jëlee kon ca procureur bu ndar daal di koy indi nag fii ci ndakaaru njaay jël jóob alaaji Malick Gakou day ci la quotidien yéene kaay waaw nee lii la xel sax mënul nangu laa wax inadmissible xale yi daal pour ñu fayeeku seen bourse il faut ni dee jiital grand parti ne waaw la may xamal président Macky Sall nag mooy parce que waa ji nee na parce lii lu ñu tàmm Sénégal la depuis juróom fukki atu yàllaa ngi nii laa la wax étudiants yi daal saa bu ñuy laaj seeni course lañ tey jëlee mooy kenn ca dee allahu akbar ne waaw cinquante kaay ma jëmal jaa ngi ne xoolal mai ba mai 2018 cinquante histoire waa benn noo bokk yaakaar day ci yéene kaay gi waaw ne tardé bi nga xam ne nag maanaam kon bourse dañ koy tardé day waaw warte indi na kon benn fi na ñiin ñi fare ak Macky Sall kee di fàllu seen ca Fataar waaw daal dinay xamal nag maanaam njabootu fàllu seen googee moom bugaan ne ñaari at yëpp dana continuer di fay xale boobee bursam waaw laaste gis nga bourse yooyee waaw tardé bi nga xam ne kon mi ngi day nguur gi waaw Ecobank day la jàmbaaraam utuuma ga maa tey taali maa ko wax parce que Seydou bi nee na dañoo bëggoon a mu méngoo jamono lool xale ni ñuy fayee ko seen bourse yi waaye ne ñëpp ne waa APR day waaw ginnaaw Seydou Gueye waaw Aminata Touré day nee na Idrissa Seck waneete na li mu mën maanaam ñàkk mandu gi ci Idrissa la njiital réew mi ak ay kàddu yoo xam ni homme d'état pire du wax loolu waaye yow ci jamono joo xam ne askanu Sénégal gaan ci miti lool Idrissa Seck mi nga xam ne kon daa réeroon ni may le 19 avril parrainage booba léegi ni le léegi nag bëgg naa feeñaat tax muy profité ci miti gi lee di wax kàddu yi yéene kaa gi ne Idrissa waaw dane Macky takk der yi nga xam ne kon du ñu nelaw ngir kaaraange wu askan wi la Idrissa da leen a war a baalu àq Mimi Touré ne waaw tey wàllum kaaraange gi enquête yéene kay ne adaw imam ndaw day waaw avocat mi enquête ngir ñu setal ko bàyyi ko mu ñibbi de réew mi quotidien ay avocat am waaw setal nañ imam ndaw ba mu laas de benn ci ay avocat sax dani procureur ak waa këram kii parquet bi lañ war a waaw ñaar fukk ak ci ay gaynde day titulaire Aliou Cissé day convoqué na indiwaat na kara waaye ji la bu ci bokkul de moo tax it moom kat su bi nee na liste bi dina am ñoo xam ne dinañ ci ak ñoo ne duñ ci békk enquête yéene dama ne liste sax dafa amul lu bees nag boo bëggee dégg-dëgg <laughs> alaaji bi moom boo bëggee dégg toog ñaan rek yàlla may ndam poore boo paree ma ne la alaaji